Thank you. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا العلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين موكي Sunrise TV ñu ngi leen di nuyu beneen yoon di leen ziar waaye di xam mbégte si yéen di leen ñaanal yàlla fu ngeen mënti دي di di leen si tànn gi nga xam ne moom ngeen tànn seen télévision bii di Sunrise TV di ko wéttelu ko waaye di ko safoo di ko bégi it tey mbokk yi ñu xam fi gan gu màgg gan goo xam ne boroom xam-xam la waaye it kilifa gu mag la di imaam di sëriñ daara tey ñu tànn ko pour waxtaan ak moom si thème boo xam ne hittil na mboolem koo xam ne jullit nga foog naa ne ñi nekkul jullit sax thème bii ñu bëgg a waxtaanee yitteel na leen muy alquranul karim ngir ne alquran moomu nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaanee yàlla subhaanahu wa taala waxoon nañu ne yahdi lillati hiya aqwam su ko defee ñi nga xam ne sa gëmuñ yàlla waxtu woo xam ne jox nañ alquran jël di ko jàng di ko settantal di ko bàyyi xel di si def ay research danañ dem ba mu jige dañuy tuub dugg si li nga xam ne mooy islaam ngir xam ne alquranul karim waxi yàlla la subhaanahu wa taala wax joo xam ne kenn kenn mëntu xam lu mel noonu su ko defee tey ñu ànd ak borom xam-xam boo xam ne xam-xamam màcc na si alquran ndax sëriñ daara la bi ñu sëriñ daara na fam naa ne jeexal na lépp ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne xayrukum man taallama alqurana wa allamahu te loolu kat mooy mission bi nga xam ne si la nekk muy fadlatu al ustaz al imam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 mbokki télévision Sunrise TV ñu ngi naa nuyu bu baax da leen siyaar da nuyu Cheikh Mouhamadul Mourtada moom mi nga xam ne moo ñu fi indi tey da nuyu caméraman yi ak technicien yëpp rek da leen siyaare da wax ne Cheikh Mourtada thème bi am na solo xam nañ mbégte ak kontaan ci bokk ko yow ñu ngi nuyu ñëpp tey siyaare ñëpp ñi seetaan ci biir biir réew mi bitim réew da nuyu suñ kilifa yi ca Daaru Ridwaan ak suñ njaatige yi ca ca koñ ba Olindum ngeen nuyu ñëpp tey siyaare ñëpp allah Fadilatou Saas nuyu am na solo lool te jotale na mu ni comme nañ ko junjeekoon rek si commencement ba tey dañoo tànn benn thème parce que yéen a waxtaanee ko muy li ñuy tuddee Alqur'an Alqur'an moomu mbokk yi moom la ñuy tuddee wala ñoñ Alqur'an la ñuy tuddee ahlullahi hmm. manam ahlul quran hum ahlullahi waaw ku bëgg nek nak ñoñ yàlla subhanahu wa taala fexeel bokk si ñooñ alquranul karim mu melni ni alquranul karim téere la bo xamné comme ni nga ko junjee yàlla moko wàcce si yenente bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir mu nek téere bo xamné da fay waar ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla wàcc si ñoom ngir ne yàlla moo waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam na ko inna arsalnaaka shahidan wa mubashiran wa nadiran wa daa'iyan ila allahi bi idnihi wa sirajan munira foog naa ne loolu rek da doyoon na alquran tey ñu waxtaanee ko waaw shahidan wa mubashiran ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا غيس ينتبي صلى الله عليه وسلم لو ري ليكو يالا جوخون جيل القران نك نكو موكو دوخال ميسون بيكو يالا جوخون لي سي غينا ري ليغا خامن يالا جوخنكو ينت يالا محمد مودون القران الكريم مام القران مومو نك nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala mom mo ne mako wakil sama bop way hmm. mako koy wutul sama bop yi man hmm. yàlla ta foog na ne ku xam saak doo wuttu xottu sak ba way la nek si bi sak ba ngay wut hmm. way nak la nek si bi sak ba tax ngay wut sak ba way nak da nga fexé ba sak ba daru du ko bënd inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kon ahlul quran hum ahlullahi su ko defee oustaz nga ñëwul ci si alquran dayo bi nga xam mom la xam si yalla subhanahu wa taala waaw jërëjëf Cheikh Moutada euh, question bi am na solo. Hmm. alxuraan moom téere la bu màgg te sell la te sakkan téere boo xam ne téere yi yàlla wàccee ci asmaan moo ca gën suñ borom jox ndawam li gën muy jaabante diggante ca. حضر ba neex yàlla ak makka مدينة madina muy jibril alayhi salaam da ko indi ci ab yenentoom bu محمد صلى الله عليه وسلم nga xamne mo gën ci mbollem yonent yi ak xéer bi kon alquran téré bu gën la ñu jox ko ndaw lu gën ci malaaka yi mu koy indi jàllarbeku jox ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam tam gën ci gaay yi jàllar beku sallallahu alayhi wa sallam xeetam fi dal da gën ci xeet ci umma yëpp sallallahu alayhi wa bi moo gën ci mboolem xeeti umma yi léegi boo ko defee ñi nga xam ne nag ñooy jëfandikoo alxuraan suñ borom moom itam jaglaal leen ab cër ci làmmiñu ab yonentu mi sallallahu alayhi wa sallam wa man taallama alxuraan wa allamahu kon bi gën hmm. ñu wàccee ko ci ki gën. ñaar umma ba koy jëfandikoo ñoo gën ku ñetti mbir ci biir uma boobo ñay jàngale alxuraan da jàng ñoo gën ci mbo métier alxuraan moo gën ci métier yëpp. muy ñeenti mbir yoo xam ne léegi nag leen benn affaire boo xam ne. Mm. mooy ñoom ñooy ahlullahi xemuñ ci ahlullahi waaye waa xaasatu ahlu alxuraan dañoo gën ba pare yàlla bu ko doon ñooñ yàlla maanaam yàlla bu dee xam ne ñooñ mm. alxuraan ñooñu alxuraan mooy ñun léegi nag yàlla yëngu ci loolu waaye dafa ñuy xaasal jegeel ñu boppam muy xaar muy xaas xam nga xaajana boo fa duggee xam na ziyaada ziyaada ba dàq dugg xaajana te ziyaada ba mooy gis karkanam yàlla bu sell ba mooy ñun ëhlu alxuraan ñooy ëhlullahi waaye ñooy xaasal kon téere lu bu foor bu sakkan. maanaam mu mel dugg àjjana xam lu ko dàq. xam na lu ko dàq. li si yéen a ziyaada siyaada gi mooy gis. mooy gis suñu borom moo dàq aljana. mu daal suñ la déggee alxuraan. Hmm. maanaam mooy téere bi gën si téere yi. Hmm. bañ ko wàcce woon la shakk na moo gën si. moo gën si yonent xeet ko wàcce it moo gën si xeet. moo gën si xeet. ñi koy jàng it ñoo gën si nit ñi. ñoo gën si nit ñi. moo tax kenn nanguwul koo jël daf ko daf ko micc te ñu ko def micc it ñu doy la. waaw loolu sàgganu jullit yi jullit yi. waaye foofu yi dañ xamul. waaye xam nga boo xamul. Hmm. te laajte woo doo xam ndax suñu borom fanoon fasalu ahla zikr in kuntum laa ta'lamuuna. xam nga yow imaam nga. waaw te yéen imaam yi tey jii nii nangootu leen jàngal seen doomi alxuraan. non ñun ñi nga seen doomi alxuraan. xam na imaam yi ko nanguwul nag. waaw waaw lu ma daa ci ànd yow. imaam yi ñu ngi seen doom yi dugalee ñuy jàng na sax. loolu nag erreur la erreur bu rëy. léegi lu tax. addina. Hmm. moo tax poñetam ta alquran boko jang alquran alxuraan ku ko jàng am poñet waaye xaj na nit ñi ñom dañuy japp ne alquran poñetam tammi day yex te gaay soxla fast track. te gaay soxla ah waaw fast track comme ma ko la waxe <laughs> hmm. waaye alquran dafa doon lo xamne julli li dañoo wara sonu ci jang alquran ak jangal sen doom manam doomi julli manam way jur way dañoo wara sonu borom Risaala dafa waxoon ne li gën ci lu do aadama da mooy fexe xam doomi julli yi jàng alxuraan lu gën ci looy laabiré moo fexe nga laabiré doomi jullit yi jàng kon doomu aadama te doomu aadama bu ne dafa am xàq ci doomam maanaam waajur wu ne am na xaq ci doomam xàq yi dafa ca bokk nga wutal ko yaay wutal ko turu rafet bu amee juróom-ñaari at nga daral ko téeréb yàlla bi fexe bam xam ca lum jullee ak donte mënu koo mokkal te xam sariya mu mel ne xale bi boo ko jàngalul yow baa ji xamel nga ko xam. bu yowmal xiyaamee da ngeen layoo yéen ñaar waqifuhum innahum mas'uluun. est-ce que loolu parents yi ñu ngi ko bàyyi xel. bàyyiwuñ ko xel mooy indi problème bi yëpp bàyyiwuñ ko xel dañuy jël seen doom da ko jàng English ñun ñi nga dañuy jàngale daara euh, waajur yi samedi ak dimanche ñu bari la ñuy la seen doom yi da ñëw daara léegi semaine bi juróom-ñaari fan la ñaar dong lañ ci sédd alxuraan lu ciy des ñu jox tubaab bi te amaana ka ngay jox tubaab ba day jàng ba jeexal programme tubaab ba fukki at ak ñaar ñu ne ñu ne léegi graduate la xam ngeen ko waxee yéen. waaw graduate waaw léegi bu jeexee des na dem université wala ngeen wax ko collège yéen gam yéen mm. foo dana fa am ñetti at oo ñeent léegi nag seet ba xam dana xam liggéey du xam liggéey te bëri na ñu ko def xamuñu liggéey dañuy continuer xëy toog wala ñu dem def ba den taaba taaba léegi nag fukki at ak ñaar nga polos ca juróom juróom yaat wala ñeenti at dafaa nekk fukki at ak juróom benn fukki at ak juróom léegi nag loola buñ ko toppoon alxuraan réussir waaye jàpp nañu buñ ko toppee duñ réussir. alxuraan moom du ko jox na fukki at jëm ak lu teg moom. da ngay réussir. xëy di semence doo da ngay réussir. alxuraan juróomi at juróom benn at nga réussir. boole koog barke ba. boole koog barke te alxuraan ku ko jàng ba mokkal ko. tiyaaba ja moo maanaam tiyaaba yow sa baay ji la jëloon yóbbu la ci alxuraan tiyaa sa baay ji nga xam ne moo la jëloon yóbbu la nga dem jànge ku yiw wi rek kenn mënu koo takk rawatina koo xam ne maa ah, rawatina ki mokkal. waaye yow yow yow xam nga ne jàngale kenn nga yaa ngi xamee daara samedi dimanche boobu ngay wax léeg-léeg xale yi du ñëw du ñëw daara dañuy dem si waaw samedi bi. te ñaareel bi it yow na la ñuy fay si school bi si benn weer yow mën na laa fay xat mi te duñ la fay weer. te duñ ko fay duñ loolu moom bul wari sax. léegi foog ko problème boobu ci yéen ustaas yi la. pas yéen ustaas yi yéen xamul siyaasa bu correct maanaam yéen a yéen a xamul boo xam ne ma ngeen ko jël ba tax nit ñi bëgg alxuraan. xam foog eh, yéen xam ngeen ci part de responsable. waaw d' accord mën naa xam dañ ci am part de responsable waaye xam nga ci misaal eh, tey samedi googu ngay wax nga xam ne ñi ci xaw a mat jànq nga xam ne six si lañ toll grade six au oh, seven nga xam ne dañuy fexe leen ticc bu leen a jàngal samedi gi mën na ma ko kaas su daal rek bu kenn dem jàngi pour bu kaas waaye mënoo ci dara pour maanaam samedi ak dimanche bi ngeen xam da ko jàngale fexe leen ba samedi bi na ngeen ñëw jàng ko mu muñ leen nag dama koy kaas waaye mënoo ci dara. ñaareel ba eh, yow ñoom la ñuy fay fële bu weer dee nañu respecté pour fay ko respecté wuñ ko oustaz bi de oustaz li léeg ñaawal ko ñaari weer ñetti weer ñeent kenn fay xam na benn xale bu ko mos a wax sa yaay mu xamel ñetti weer fay daara mu ne ma suma yaay lu mu ispan ci temps yi ci school bi ma ne ko ñaata mu ne ma si yaay taw sax taman tri taw la ma xamel <laughs> xam loolu. <laughs> te yow boo dàqee dootu ñëw si daara ci te school bi ñu ko dàqee dinañ lijjanti fayal. bañ faaw ñu fay ko. xeb alquran foog alquran def mën mënut joxe dépasse mën a joxe liggéey. loolu mo al lépp luy joxe dépasse alquran ci daqa joxe dépasse ndax ndax barkeeb alxuraan boo koy e jàng tuyaaba jaay bëri ba da ngay am ñaar mom yi wu adina la ak yu wala nee naa English ci adina la yam alquran nak dalay duggal aljana ba duggalale juróom-ñaar fukk sa walu nday juróom-ñaar fukk sa walu baay loolu borom teeri ban ko xam bin nañ ko. loolu foog gars yi xam liggéey bu baax si àdduna. leen ko gënal mooy problème bi loolu nag mooy poñu tam àddina léegi nag ku jël. léegi feebar boobu yow loo gis ni moo ko dugal si biir xilib parents yi si parents yi seen bopp yi. àddina rek àddina rek. léegi àdduna googu luy solution ni ñu la mën a def ba génne ko si biir. léegi nag pour solution bi jeex. Hmm. man waxuma bu kenn jàngal English de. Hmm. kum neex na nga jàng English waaye fexeel sa doom yi ngay jàngal English nga fexe ñi xam luñ jullee te xam sariya ku ciy góor ak ku ciy jigéen. boobu xëy léegi ñu mën a defar seen jaamu yàlla boole ko seen poñetam àddina alquran moo ne na nga sàkk dund moo ko digle ba mel ni doo fi jëyee ko waaye nag jàppale ne itam lii suba maanaam booy tëdd jàppale doo xeew doo maa jullit noonu la war a mel balance boobu la war a am. maanaam jullit daal war naa xiitu dund ak àdduna mu mu mu eh, jaar ci yoon te neex. waaye bu mu ko yàqalee yàlla bu mu bu mu ko bu mu ko fàttaloo man it beneen point dama ko gis euh, Gambia ñu ngi jàng juróom-ñeenti weer si at mi hmm. daanaka ñuy tëj ñetti weer maanaam maximum hmm. léegi si biir ñetti weer yooyu nga xam ne moom lay woon na am holidays hmm. man school yu bari dama fa di jaar jamono ji waaye da ngay romb school bi dafay fees ba mel ni normal school la xale yi nekk te it ñoo ñëpp ay doomi jullit lañ yoo xam ne ñu ngi si biir classe yi toog fa di jàng ñi leen fa yóbbu jullit lañ xale yi ñu fa yóbbu jullit lañ ki nga xam ne yow sa 12 mois si yëpp at mi yëpp léegi da nga koy jàng nasaraan. Hmm. kañ ngay jàng alquranul karim. question baa ngi man na ma te comme li nga wax maanaam sa doom bu mat a jàng alquranul karim nga jàngaloo ko alquran loolu fardu ayni la. dafa def fardu ayni. maanaam jàng alquran si jullit. Hmm. duwul naan fardu kifaaya la wala la. pour lu mu wala wala nangama nanga waajib la. Hmm. jullit jàng alquran. xam diinaam loolu moom waajib la. Hmm. mu mel ni feebar la boo xam ne daanaka dafa dal seen société bi. Hmm. te it comme ni nga ko waxee dara taxul ñu gëm loolu. Hmm. waaye euh, poñetam àdduna képp. poñetam àdduna képp. comme li ñu waxoon rek maanaam ahlul quran hum ahlullaahi wa xaasatu. su ko defee euh, boo xoolee jullit ñu njëkk ñi. maanaam ni ñu xamee yitti si li nga xam ne mooy alquranul karim ngir xam gi nga xam ne moom lañ xamoon ni yàlla subhanahu wa taala moo wàcce alquran hmm. te alquran kat maanaam mbir la moo xam ne chaamilun la hmm. waaye jaamiun la hmm. waaye maani alay moom alquranul karim nga xam ne yiwu hadunaan si yiwu halaaxiraan si niw nga dox ba dajee doomi daara joo xam ne daara pare na si moom xaw ma dégg nga maam dana xam doomi daara joo xam ne daara pare wu doon si moom moom moo pare sa daara hmm. kooku nag su ko defee li hmm. daara soxla woon si eh, taalibe hmm. du ko mën a xam kooku mën naa ñàkk a réussir waaye doomi daara joo xam ne daara pare na si moom mu génne da taxawal man na loo gisaguma ko déedéet ci misaal sa boo demee Dakar tey milliardaires yi ëpp Dakar milliard ay doomi daara lañ Abdou Aziz Sy la doomi daara la Serigne Boub doomi daara la Abdoulaye Dia Sodiko doomi daara ak ñeneen ñoo xam ne man xaw ma seen tur. bëgg mbaxal naa ne moom it. bëgg doomi daara hmm. man su ma njaatige gi ma gi ma ne nii. Alaaji Mbay Touré doomi daara la te réussir na fexe ba mokkal alxuraan xam ni ñuy jullee boole koog dem business yi ku ubbi ko ci business bi. te mën naa ay ministres. bañ a mën a maanaam léegi yow bokk maanaam moom sax. ma Alaaji Mbay tey ti misaal wala Cheikh ña ma jege ñëpp nga xam ne ay doomi daara lañ ba leen seen bàyyi toppatoo xee ba pare ñu ñëw dugg ci marché bi dem business yi ci barke Alxuraan la yàlla sukkandiku ko bi leen bañ jël ay nit da leen liggéeyloo ñu leen a fay amana sa ñu jël koo xam ne English bi la toppoon de ba jeexal ñoom jël la fay kon yow mi nga xam ne da nga xeeboon daara tey doomi daara la xamee. maanaam daara daal mu ngi jagal ay kawaadir. daara li muy English ko. daara moom da koy jagal de ñële jagaluñ. ñële dañuy yefal. ñële jagal dañuy yefal ñële seen jagal fii la yem. te ki nga yefal nag bis bu ñàkkee dund rek déborde. jaana. maanaam das mii ne loolu moo indi fitna gi si dëkk. fitna bi yëpp loolu ko yéen dañoo jàpp ne daal te fekk moo gën a xoom yëpp moo gën a sakkan yëpp ak donte dafay mel ni lu xaw a yéex waaye tey boo ca neexee ba barke ba xëy si la ci misaal léegi kër sëriñ ci yëpp. business bu du daanu la. business bu du daanu la. alaay sëriñ Thiar Xuraan la ne woon fonk ko lool ba benn kaamil bi loo ni nit fay ci fanweeri junne seexa te boobu mu ngi xam juróom fukki kaamil néegam moo ne kooku alxuraan jaraloon na ko moo ta keroog ba ko yàlla fayee mu rus sëriñ Tuubaa rahmatullahi alayhi noonu la meloon bëgg alxuraan ba dafa jël alxuraan lalam ya mu war a tëdd mu teg fa téere alxuraan ya parfum ya muy pompo moo ko koy pompo xin fu si ko yaa kitaabal karim da ko wéy wéyu neex barke boobu keroog ba tey tuxuwut tey tuxuwut mm-hmm. alxuraan moo moo mel noonu boo demee Tiwaawan Seydi Hadji Maalik si loolu la alxuraan lu mu samp mooy samp bu dul samp bu dul la maanaam samp alxuraan bu la sampee wala mu samp sa yëf moo mm-hmm. bultu ba ñooy wala bu maanaam fi isaan fi sóori ñooy ànd mm-hmm. ba kere yàlla di dekkal ke kere yàlla di dekkal nit ñi la la yàlla joxoon ko nangu ndax yàlla du maye nangu te yow téere boo xam ne boo koy jàng ñu fay la. ngay déglu ngay déglu ñu fay la. ngay xool ngay xool ñu fay la. ñu koy jàng sa boo leen bëggee ñu. ñu koy jàng boo leen bëggee ñu fay la. léegi nag dafa sakk fay duñ la fay par baat par xaraf lañ lay fay. waaye léegi ki nga xam ne moom nanguwul koo jàngalu nanguwul koo jàng. Hmm. du ko déglu bëggul ñu koo jàng kooku mooy ki xalaku ki. Ah, salaay salaam wax na lu mel noonu. <laughs> maanaam moom benn nga koy jàng. maa ngay jàngalu. mangai ngay mangai ma ngay deglu ma ngay deglu ma nga bëgg ñu koy wala tukun khamisa na la waxon khamis ba moy yow jango jangulu ho bëgg ñu ko jàng au contraire ngay xex dara manam ki xex dara mu ngi si bu dé dem safara bu yalla jéggul ak sëriñ bu euh, la la la mom kay bo bëggut gaay mandul ci ñom nak waye yow tay ci misaal Gambie sax xaj na bëriwul fi waaye ay xaaye yalwaan finnaal daara nga xam dafa mel dafa bëri Sénégal te fekk yow ñaari doom nga xam te état dafa am ñaari doom mooy doomu English ak doomi daara daf leen war a xemale nag ndax loolu mooy mando waaye defuñ ko doomi English bi dañ ko tabaxal classe yu baax wutal ko yére bi muy sol bët bu set te du tilim bokkal ko ak saak defal ko ca mbuusam ndox wala biron solol ko ay dàll yu rafet mm. ak i kawaas mm. mu dem jàng te bu demee dañ ko teg ci bang ak taabul ju muy teg mm. loolu lañ defal doomi English doomi daara moom defuñ ko dara defuluñ ko dara moom dañ ko seetaan rek moom muy fra da ngeen nekkul da ngeen nekkul siti seen dëkk bi du leen siti waaye ah, bokk ñoom ñoom seen doxalin noonu la midu fekk na ci lañ bokk maanaam doomi daara ci dëkk bi la bokk moom état moo njabootee ñëpp maanaam président Adama Barrow est-ce que jaboote wa loolu la deful nag mooy yaay joo xam ne yaayoo ay doomam da nga am ñaari doom kenn ki nga boot ko da fóot da sangare def lu ne kenn ki nga ne ko sama yoon néew ci yow bokk muy tilim. au contraire sa njaboot yow ñooy jàll bi ko da ko xeex. mooy doo fi yalwaan ci misaal. wala ñi xëy tëj daara yi wala leneen wala leneen wala leneen mooy xeex daara. te fekk yàlla moom day bañ wa yaaba allahu ila an yutima nuruhu walaw karihal kafirun awil mushrikun yàlla moom bu bëggee leer rek mu jàll kenn mu si dara jàll rek léegi nag yow bu fekkee ne. ñaari doom nga xam olof yi day wax ne mbéjum mbéjum kanam. borom a koy fajal bopp. nit ñi ko ma léegi yéen doomi daara yi bi ngeen nar a toog di ñaxtu lii ba foofu léegi yéen yéen kañ ngeen am solution. solution bi daan mooy ñun ñun suñ suñ. ndax yéen guute gi leen dugal nii ndax da ngeen fi génn. Ah, xam taala ah, yàlla génnee ñu fa. déet waaye nag il faut ngeen jël ay asbaab. waaw loolu war naa ne bu ko doomi daara xam nga ko mel ni tey imaam yi ñu mel ni imaam Ibrahima Thiam wala ñu mel noonu ñu ngi kaas lu bëri ci wàllu diini ji ñu seen loxo jot foofa léeg-léeg bu état buñ dugalee lu duhut noona l'islam xam si ñoom dañ ko kaas ndax man léeg-léeg ma wax ma waxtaan Ibrahima Thiam. waaye gis nga ne gis nga ne alquran tey ki ko jàng jàng diine kese kooku mën naa doxal wàllu àdduna. kooku moo dàqa doxal àddina sallallahu alayhi wa sallam alquran la xolal politique bi sallallahu alayhi wa teural tëral ba réussir àddina téye ko kap ci loxom kenn gëmul la woon mag da ko xex fukki at ak ñet wala ben manam tay ki jàng alquran nga xamne ne maîtrise na diine kooku war naa mën a nekk président doxal réew. état islamique état li ñuy wax état l'islam ko ñëk teural Espagne gi léegi yéen lu tax duglu leen seen si alquran ci fogo lolu tax nit ñi manam jox gannaaw alquran. ah maanaam jàpp gi jàpp ne alquran mënut doxal. alxuraan moom mën naa doxal léegi yow eh, eh, xam nga fu mel ni salaay salaam ba mu fi jiyee ko si naa Babacar doon xalifa état islamique dafa wëy ba si si naa Babacar ba mu fi jiyee ko si naa Omar jël état bi dafa wëy. da ko doxal dañuy am ay gouverneur min ay ministre ay député. waaw parce que dawla dawla umawiya lépp ba yëpp da doxal Espagne juróom-ñetti téeméeri at Espagne juróom-ñetti téeméeri at la ko julli di yilif waaye sàggan ak jullit yi ca leen ñàkkee lu bëri. foogoo sàggan googu moo ko ni da leen moo ko ni ba tey de. <laughs> ba léegi. waaw ñun ahlu daara yow ci ko bokk <laughs> defee li wax noonu pour taakid ko rek <laughs> maanaam saxaaba yi ridwanullahi taala alayhim mm, ak taabiin ya ak taabii mm. eh, seen mbir yëpp alquran la mm, yëpp ma ngi eh, ñoom dañ ko réussitul jamono boobu boo bëgg a takk jabar te xamoo xaalis alquran yi nekk sa can waaw waaw nit ñëw na ci nit ñëw na ci yonent bi salaay salaam ma jigéen. Mm. na ko dama bëgg nga may ma so. Euh, may naa la sama bopp la ko wax. salaay mm. salaam ma ne ko xaw ma xaaju si jigéen jamono bi. Mm. benn waayang fa ne ko may ma ko. mu ne ko na ko jox yire mu ne ko xaw ma dara. mu ne kon jox ko jaaru mu ne ko xaw ma dara. mu ne ko ndax mokkal nga dara ci alxuraan mu ne ko mu ne ko may naa la ndaw ci ci saar yi nga mokkal. ñu ne xam moom koom-koomu àddina ak koom-koomu alaxira maanaam ñaari koom-koom la boole. alxuraan ñaari alxuraan réglé na réglé na ruqu. ki nga xam ne àddinaam xamut xamut te bëgg takki jabar maanaam bu fekkee ne mokkal na dara. bu mënees na ko may man xam naa ñoo xam eh, loolu nag moom dafa contraire ak seen jamono ji waaw seen ji loolu dafa contraire. Hmm. seen jamono ji boo ñëwee di ñaan si jigéen. Hmm. li ñu la njëkk laaj mooy looy liggéey. ah loolu am na. te xam nga yonent bi daf ko laaj waa ji. na loo xam. pour ma takkal la ko. Hmm. mu ne ko xaw ma dara. Hmm. yonent bi ne ko walaw xaataman. Hmm. mu ne ko walaw xaataman. jaaru sax bu ma ko mën a joxe can xaw ma. te yonent bi ko wax yonent bi ne ba ko ndaw si ne ko may naa la daf ko doon jékku ma. waa ji jóg si biir mbooloo bi ne ko jékki naa. moom moom moom moom yonent bi ne ko loo mokkal mu ne ko mokkal naa saar sàngam mu ne ko jàngal ko mu nekk can. mu mel ni point boobu réglé na tey boo demee di ñaani jabar tey. ngir nit ñi àdduna jox gi ñu ko jox njël hmm. loolu moo indi fitna ji yëpp tey. Hmm. man xam naa koñ yu bari dañoo rafle imaam. Hmm. dañ ko gën a rafle nag. li ko waral yëpp mooy ñàkk a seen doomi alxuraan. dañ ko gën a rafle maanaam dañ dem ba ci kanam. waaw si dëkk bi fii koñ yu bari jàkk yu bëri dañ rafle imaam yéen ñi imaam koy jiite laysu ahlan an takuna aim. téere loolu mu ngi dëkk bi fii. Hmm. imaam boo xam ne mu ngi. waaye xam nga yaa fi sës fi sës la imaam yaa fi sës. te loolu it loolu it. loolu la ko indi dara Fatou ba moo baaxul. képp parce que ñun dem nañ ba tey ñun feebar bii mu ñu dal tey. Hmm. ñu war koo mën a mën a régler. Hmm. jël suñu doom yi fexe ñu leen jàngalu alquran. waaye laag boobu nga xam ne ñu ngi ko xam problème si suñu wàllu diine. jàngee ci waaye dañ continuer di di di tas yeen suñu doom yi di leen yóbbu ñu leen a jàngalu nasaraan. te olof daf daan wax mu ne. waxuma ku la yar ma wax la sa jikko tey ñun bu fekkee bëgg nañ suñ doom yi xam jikko joo xam ne jikko islam la faaw ñu jàngaloo leen lislaam faaw ñu jàngal leen lislaam dugal yow tey buñ la yóbbu woon sax anglican xawma seen euh, coojee seen school ya hmm. du tax nga nekk catholique déedéet mënuñ si parce que pare nañ si pare nañ raw naa leen su ko defee loolu maa ngi ko bàyyi xeloo xel julit ñëpp hmm. ñu xam ne doom ndénkaane yàlla la subhanahu wa taala hmm. te it mu am xaq yoo xam ne dafa dox sa diggante moom. Mm-hmm. xaq yooyu nag bu ci gën a mooy jàngalu ko alxuraan. Mm-hmm. loolu fardu ayni la si yow bàyyi ji. nga defal ko sa doom bi. Mm-hmm. ndax moom xàmmeegul. te bala may xàmme xaj na jàng alxuraan weesu si moom. kon nag forcel sa bopp forcé ko moom mu jàng. te ñu xam ne jàng ak ñàkk jàng wërsëg xajuwut si loolu. waaw wërsëg su fekkoon ne si xel la xaju. ak njàng. konoon bàyyi may yàlla ko. ndax ñoo xamuñ xel bay jàng. te ku si xëy da nga lekk ba suur. Mhm. da nga naan ba maan. Mhm. waaw ngay ndéegi nii heure bu xëyee ndawal lay ndékki. waaw bu tooy xepp moom lu mu raytee bu subaa bu desee du ko lekk. du ko lekk te ku ko gàddul lool. Mhm. kon naa mën a war naa mën a gàddul. ku ko gàddul ñoñom ñoñom. ñoñom dégg nga ma alxuraan ñooy ñuñ yàlla. kon ko defee nuxtu boobu noonu. nit war nañ cee bàyyi xel. xam ne du intérêt ba àdduna. xam naa su ko defee incha allahu taala waxtaan wi jeexagut. su ko defee rek eh, part one bi ñu emale ko fii incha mm. allahu taala mm. su ko defee ñu ñëw si part two bi incha allah mootle waxtaan wi tëj ko mm. si alquran importance yi nga xam ne moom laa am allah allahu taala jazakumullahu xeyr